waa jërë ngeen jëf yéen ñiy topp suñu seen YouTube bi nga xam ne mooy Info 7 TV ah mi ngi noonu xibaar bu ñu jot léegi waa rédaction Info 7 kilifa bu yaana a marre dañ ko teg loxo ay vers 16 heures ña def loolu nag ñooy waa Dikkan ah, ñoo ko teg loxo xam naa incha allah dinañ ci ñëwaat euh, gën ko yaatal. ak Info 7 TV wéy leen di ànd ak ñun di abonné tey bés cloche bi en ah. lépp luy vidéo bu ñu leen wàcceel ngeen man di ko jot en temps réel fii ci Info 7 groupe bi leen di jox ay xibaar yu gaaw